à tous. tous euh, premier numéro de la semaine bu seen émission le rendez-vous de Sénégal 7 c'est reparti pour une heure euh, de direct pour waxtaanee euh, tolluwaayum réewum Sénégal surtout les dossiers yi nga xam ne mun nañu wax ne ñal na wàllum politique économie ak justice tension sociale aussi di leen ko waxtaanee polémique yu bëri yi nga xam ne ci Sénégal aussi di leen ko waxtaanee yooyu les sujets d'actualité yëpp j'ai le plaisir d'en discuter avec euh, l'ancien député, euh, l'honorable député Moustapha Diakhaté. Euh, Salam honorable. waaleykum salaam wa rahmatulah soxna Diakhoune maa ngi fay di nuyu. di nuyu Sénégal sept yëpp. di nuyu waa Sénégal yi nga xam ne ñu ngi nuyu di nuyu man mii di nekk ci bitim réew di ñaan yàlla may nu tawfeex ba liñ koy te am njëriñ. Mhm. merci beaucoup honorable honorable dañuy dooree émission bi nga xam ne euh, polémique bi yëpp nga xam ne ñu ko am euh, tout au long kan wi par rapport ak euh, article bi nga xam ne euh, Le Figaro def na ko si euh, terre bi si wàllum rek contrat d'exploitation yi ak non rentabilité bilatéraire gis ne na carrément mu am ay divergence d'opinion et de point de vue par rapport ak li nga xam ne mooy lié état bu Sénégal ak société bi nga xam ne mooy SETER yow mi nga xam ne sa xam-xam màcc na par rapport ak lépp rek loo xam ne ñeel na wàllum doxalin état wala sax rapport yi nga xam ne Euh, non gouvernant dañ koy am ak yile société yi nga xam ne moom la ñuy euh, sekkal euh, bile liggéey noo gisee mbir mi nga xam ne dox na si diggante état bu Sénégal ak boobu les sociétés françaises waaw xam nga man damay li si ànd jub daan wax daf ba léegi dafay dafa dal waa Sénégal si ànd dafa naa Sénégal yi nii dox ba yàgg ñu taxaw naan ndax yor na ay tànk mm-hmm. franchement état bu Sénégal jël société bu moom dénk gestion ay ay loolu du lu fi bees mm-hmm. d'abord SDE mi fi njëkk nekk ci mbirum ndox. Sénégal moo ko dénkum ndoxam waaye taxul ndox mi France moom ko. dëgg la. so muy Sen'Eau. mooy gérer ndoxum Sénégal lu taxul ndox ma France moom ko pourtant euh, Sen'Eau société bi ko meññ France la bokk. autoroute à bi nga xam ne moom lañ joxoon Sénac SA soppi nañ ko sax léegi. mu di ko gérer société euh, cosaan ba France la jógee. muy Eiffage mais taxul autoroute bi France moom ko kon véritablement lu jar wérante nekku fi te nag ñun waa Sénégal dañoo bëgg di wax coomu jëriñ Sénégal moo jël su am moo am moom moom teer wut ñu dénk ko ñu ko gérer ba ba muy am moom ñu mën koo gérer boppam su ko nag Sénégal daa am ñu mën a gérer ñu jox ko tubaab bi boobaa coow mën a am pour le moment du ma ne Sénégal am na fi ay nit wala société bu am expérience bu man a bu toll ne lu gérer lu lu mën lu toll ne franchement coow li man gisuma lu ko fi jar. mais à quel prix euh, peut-être dina loon fi am mais fu mu toll nii euh, mun nañu wax ne carrément ak technologie bi nu mu euh, développé ak rapport donnant donnant yi nga xam ne dañ koy gis si diggante ñaari dëkk ban pourcentage la si Sénégal di am wala sax est-ce que am man aussi beneen façon de. de non non xam nga pour le moment moom Sénégal amul expertise bu gérer terre amu fi dañu wante dëgg quand même amu fi. ñun transport bi ñu mën a ci bi ñu war a bi ñuy gérer suñu bopp sax musiba la ñuy jural bi su yàlla sàkk 60 morts guddi daanaka. <laughs> mais Sénégal amuñu ko mën ba comme dafa am Sénégal daa ñu ko mën. la rigueur mais li nga xam ne moom laa moom moom ñun ci a taxaw mooy ñi nga xam ne ñoom lañ dénk gestion bi seenu nekk fi lu mu gën a gàtt moo gën bi maanaam bi maanaam ñu former ay sénégalais organiser leen ba li ñu dal ci ndox mi bañ noo dal ci terre bi maanaam bu ñu def ba Sénégal yi am expérience yor terre bi ñu jox ko Sénégalais gëm mooy seen o jërëboon ñu dugg fi parce que gëm naa ne am na ci biir euh, ñi fi nekkoon SDE am nañ expertise bi am nañ expérience ba bu leen état bi organisé woon war nañoo mën a gérer ndoxum Sénégal loolu lañ war a fexe ba mu bañ noosal ci seen bi maanaam. Mhm. diir bu gàtt bi nga xam ne ñoom la ñoom lañ koy ñoom la ñu siyante ñoom ñu ñu formé ci ay Sénégal yoo xam ne daañu am technique dañu xam maîtrise technique bi ba mën a gérer seen bopp euh, terre bi je crois que loolu moo war a nekk debaa bi mais li Sénégal def moom lu bees yàgg na fi trop. am di ko nag gënut ndax bu ma sañoon Sénégal lim moom moo koy gérer boppam mais pour le moment amuñu expertise boobu. Mhm. ñàkk expertise bi ak ñëpp nga xam ne dañoo jàpp ne terre bi nga xam ne le président de la république Macky Sall honorable teg na ko mënoon a réhabiliter li nga xam ne moo nekk euh, chemin de fer yi nga xam ne mun na permettre euh, ñu am ay euh, longue distance mu tax sax accident yu bëri yi sax ñu wàññi ko finalement est-ce que loolu rejoindre yenn si ay politiciens wala ñu féetoo si waaye auto bi di xam ne ne Sénégal dafa jël. jël rek euh, terre bi pour sukkali rek euh, ay entreprise euh, français loolu wax dañuy wax lu leen neex terre bi du moo mën a sukkali entreprise bu France loolu moom ay waxu picc la quoi. mais ils ont gagné ah, beaucoup d'argent aussi xam ne da bëgg critiquer rek pour critiquer maintenant li ma jiw bi nag mooy terre baax na waaye aussi yeneen terrain baax na mhm. et je crois que d'ailleurs ci boobu option le président Macky Sall xam nga en réalité embouteillage moo seer Ndakaaru gis nga tous les cinq ans lu mu tuuti tuuti Sénégal ay cinq cent milliards dina ko ñàkk ci mbirum embouteillage benn ci wàllu alal bi ci def mooy embouteillage mooy jur pollution mooy saxaar yi ci mbedd mi nit ñi di seen asma du yëngu hors terre bi lu mu gàtt-gàtt dina yo dana maanaam dina dina wàññi embouteillage benn euh, ñi nga xam ne ñoo ciy dugg seenu dem dina gën a gaaw man gis naa benn waay boo xam ne neen depuis cinq ans gisul ay doomam samedi lu dul ay doomam bëccëg lu dul samedi ak dimanche bi teer bi ñëwee ba léegi <clears throat> teer bi lay jël teel ak fi muy liggéey su wàccee balaa balaa di heures mu nga kër donc encore une fois dafa am li ñuy wax rentabilité financière loolu nag du ci benn bis am les pyramides d'Égypte am nañ une grande rentabilité financière pour l'Égypte et pourtant am nañ lépp 10 000 ans la Tour Eiffel am na am na rentabilité financière ñaata at la am la rentabilité financière c'est dans la durée mais dafa am li ñuy wax rentabilité sociale mooy li ma la wax ñi nga xam ne dañuy gaaw dem ak seen liggéey te ñu sonn di gis seenu njaboot. Mhm. mais aussi am na rentabilité environnementale mooy pollution bi dina ko wàññi 17 millions yi terre bi wàññi euh, transporté diggante 2000 bi ñu ko sos bi ñu ko cosa bi ñu ko créé euh, inauguré léegi mais lu mu tuuti ay 17 millions de de pollution bu mu wàññi la. 17 millions de coono bu mu bu mu wàññi la 17 millions de gaawaag fi nga bu mu fi indi la encore une fois waxu yooyu nañ ko bàyyi. mooy benn. pour ban coup aussi honorable pour ban coup ban coup aussi. bi lu métti lu cher terre bi cher cher moo gën a yomb amul terre bi. terre lu mu cher cher moo gën a yomb et puis transport en commun la ko tax a jóg du am bénéfice. man li ma gëm mooy même transport interurbain bi am ci diggante dëkk ak dëkk état bi da ko war a nangu yoroon ko boppam jox ay lu war a ba 2500 bus. ñu jox ko Dakar dem dikk mu yóbbu nit ñi aller retour à l'intérieur du pays ñuy faylu tuuti parce que dafa bokk ci loo xam ne état bi daf ko ja daf ko war a jàmbale nit ñi muy ñuy dem ak dikk daal la sécurité. encore une fois man mooy leen Ndiaga Ndiaye koy dindi jox Dakar dem dikk kaar yu doy sëkk muy mën a yóbbu nit ñi ci sécurité ak ci gaaw. mais est-ce que état am na courage pour euh, faire face à ces euh, voilà syndicalistes amul benn courage ku yóbbu ndox da ngay rek jox ko Dakar dem dikk. ñuy dem nord ñuy dem sud ñuy dem centre ñu tasaare leen ci biir réew mi ñu yóbbu nit ñi loolu moo amul courage l'essentiel mooy moyen finance te man gëm naa ne jënd 2500 bis jox ko Dakar dem dikk moo ñu gën moo gën ñuy bàyyi Sénégal yi ci ay transport en commun boo xam ne dara baaxu ci mhm, mhm. juste rappeler rek euh, internautes yi nga xam ne euh, ñu ñuy suivre euh, door neen waxtaan bi je suis avec l'honorable député Moustapha Diakhaté moom nag moo fi nekkoon président du parlementaire euh, Benno Bokk Yaakaar ñu fas yéene amal waxtaan bu am solo par rapport ak euh, wax taxawaay réew mi waxtaan bi nag dinañ ci waxtaanee lu bëri par rapport ak lépp rek loo xam ne ñeel na wàllum euh, ces dossiers yi nga xam ne dañ leen tuddee fii Sénégal politico judiciaire ak tension sociale bi nga xam ne nemmeeku aussi si landerneau politique bi honorable ñu waxtaan léegi dugg si par rapport ak procès yi nga xam ne mu ngi annoncé euh, gis ngeen procès bi nga xam ne fas yéene na dox ci diggante kii nga xam ne mooy Ousmane Sonko ak euh, le ministre du tourisme Mame Mbaye Niang moom rek nga xam ne dafa jàpp Sonko daf ko diffamé euh, si wàllum rapport bi nga xam ne dafay wax ne ne IG e, euh, moo ko épinglé finalement Ousmane Sonko mu ngi xam ne ne IGF e euh, la loon wax lapsus la defoon dem na sax si conférence keroog muy wax ne boobule information daf ko lire rek si net bi <laughs> comme tout citoyen honorable yaa ngi yaa ngi réer bi ma dégg wax loolu dama rus quoi. ah pourquoi nga rus honorable. Ah, yow dégg seetaan noo ko mu naan ñun dañoo yor document yëpp. wala doole doo xam benn bis. bu demee tribunal ñu ko daal xam nga tax. Ah xam nga diffamation bu fekkee da ngaa diffamé nit pour nga li nga wax dëgg la vingt et un avant jugement bi nga war a jox document bi tribunal mhm. autrement dit bu fekkee daa yor document authentique bu baax le cinq le quatre ou le cinq janvier la ko war na yóbbu tribunal mhm. malheureusement pour le moment yóbboogu fa dara ça veut dire quoi le bis bu demee le deux tribunal def lu dul condamné ko condamné ko ça veut dire Ah, ça veut dire, ça peut dire, ça, il peut écoper de deux mois, de trois mois, il peut écoper même de six mois. cest à mën nañu ko condamné condamnation boo xam ne du bokk ci élection. Mhm. te loolu moo ko teg boppam. yow c'est-à-dire naka nga mën a nekk kilifa di wax loo xamul dara naan yor naa document yi ñun yor nañ lu ne te yoroo dara ñu wax ñu ñu porté la plainte nga naan diffamation amu fi parce que ci internet laa ko liire loolu mooy in liire ci internet jiñ ko loolu mooy diffamation. Mhm. je crois qu'il a il risque d'être d'être condamné. parce que un euh, bi nga xam ne moom lañ ko imparti pour mu war a déposer moom rapport bi mu ne moom la yor délai bi jàll na mënatul déposer dafa demee tribunal duñ ko sax xool bi des mooy li mu wax ma mbay ñeneen ñi ko waxoon ma mbay tribunal condamné la leen mais loolu kon en gros li ko a teg bopp loolu dara tër lu bari wax ak bëgg a ne jàmbaar la jàmbaar kenn du ko wax dañ koy doon bokk na ci njàmbaar nag di wax dëgg loolu nag Sonko daf koo mënut mais ñeneen ñi est-ce que euh, Mame Mbaye euh, Sonko mi nga xam ne mun nañoo wax ne léegi euh, honorable bokk na ci force yi nga xam ne peut-être moo tax sax fu mu toll nii la situation du pays xasa xaw am li nga xam ne moo nekk ay tension procès Mame Mbaye Niang bi biñ ko condamné comme ni nga koy waxee ba xañ ko yilee élection yaakaaroo mu indi fi benn tension bu doon parce que li ko li ko dal moom mu waxal moo fekk doomi jàmbur yu am ndey ak baay dëkk ci réew mi mu ciñ ko tooxi doona lam doon wax dara du ci dëgg yow da nga yaakaar ne moom moo gën ma mbay ba bu xasee ma mbay ma mbay amul droit dem tribunal il y aura procès effectivement pour mais y a une communication derrière ce procès ban communication non boob moom ñaar sax ñoom liñ ci wax bëriwul daa mel dañ ko fàtte alors que boobu moo gën a dangereux sax bu Adji bi ci pour avenir politique ah oui pourquoi ah mais buñ ko condamné à une peine de six mois dootu bokk ci élection yi finalement sénégalais yi nga xam ne lu ëpp si sénégal yi nga xam ne mun nañoo wax ne dañoo ñàkk a wóolu justice bi bu ñu demee. ba condamné non ki war a wóolu di parce que moo wax lu dul dëgg ki lu dul dëgg kooku moom moom dañu war a wóolu. Mhm. Ousmane Sonko moom wax lu dul dëgg ni am na rapport GIE. waxul dëgg mu dem damaa jum rapport IGF laa wax rapport bi amul ça n'existe pas rapport IGF rapport IGF buy wax dara Mame Mbaye mais comment sa rapport rapport bi existe na wala dañ koo signé wala wala qu'est-ce qui s'est passé. rapport mooy lu ñu signé. Ah. rapport dañ koy signé numéroté ko daté ko mooy rapport wala li ci yëpp du dara. soo jotoon lu lettre ñu di saaga te ki ko turu ki ko bind newu ci signé ko dat newu ci ndax da nga jàpp kan nga moo la saaga. Mhm. rapport bi amut. moo tax ñi ñu yóbboon tribunal ña ma ba yóbboon tribunal saa suñu demee dañ naan leen rapport bi amut condamné leen. Mm-hmm. loola lañ koy def moom itam. donc pour sénégal yi mën a comprendre rapport boo xam ne signé wuñ ko amul benn valeur juridique. mais bien sûr mu mel ni un article de presse rek sans signature. amul benn valeur amul donc c'est ce qui sauve Mame Mbaye Niang. ah non condamne Sonko. <laughs> Mame Mbaye rien ne le sauve parce deful dara. à la limite li ñu wax sax lépp waxu ko defu ko ce qui enforce Sonko c'est-à-dire que Sonko bu naree bu buñ ko naree condamné ko teg. xam nga kilifa day day day day natt li muy wax man man nag loolu moom daf koy daf koy yomb day yomb doo gaaw a bàkku trop di wan nit ñi ne man xam naa c'est tous les dossiers alors qu'en fait le fait que mu ne ci internet la ko gisee pour qu'il n'avait rien lam doon yor naa document yi waxul dëgg mm-hmm. ndax li nekk ci internet bi moom du lu yor kon ñi ko ñi wóolu ku ab ku wax katu dëgg ñoo problème mm-hmm. mais ñu des ba tey euh, si si si si si procès yi euh, honorable gis neen na procès yi ak communication yi nga xam ne am na autour de ces procès yi nga xam ne mun nañu wax ne la personne concernée moo nekk euh, le leader de PASTEF Ousmane Sonko déjà son procès avec Adji annoncé neen ko gis neen euh, sortie bi nga xam ne le procureur euh, l'ex procureur euh, de la République def na ko Bassirou Gueye ñu bëri jàpp ne carrément dafa rek violer li nga xam ne moo nekk loi en tant que ancien magistrat koo xam ne moom leen dénkoon bile dossier est-ce que on na artu si bile si si si si boobu les procès kii honorable sëñ Bassirou déclaration bi c'est une conséquence wax naa ba tey nii Sénégalais nag ñoom dañuy dañuy fekk wati su jaan ñu di ci dóor bàyyi jaan. comment une conséquence. je vais te le dire. allez-y honorable. pendant deux ans. yàlla sax Ousmane Sonko tekki deru Bassirou Guèye bi lu bon. di ko doon ci complot bloc ba mujj mun yore doole ko nekk da ngaa falsifier ay procès verbal muy accusation bu garaaw. te dara du ci dëgg. xanaa Bassirou géey gi am na sañ-sañu nag ne li ma doon jiiñ depuis deux ans dara du ci dëgg parce que dara du ci dëgg googu xam nga njëriñ. mooy ñi gëm ne Ousmane Sonko lim doon ko complot dëgg la. mais devoir de réserve bi nga xam ne à chaque fois non Ousmane Sonko xam nga devoir de réserve bi ni de ne rien dire sur le procès. mais est ce non non non non Sonko mooy le magistrat Bassirou Gueye un dire le secret de l' instruction. Uh-huh. moom waru ko sax wax. moom sax waru ko wax or li am solo mooy moom li mu doon wax ne sëñ Bassirou Gueye daa falsifié. document yi sëñ Bassirou Gueye daa bokk ci complot bi dara du ci dëgg kenn comploté wu ko kenn Bassirou Gueye wul dara loolu Sénégal yi yëpp parce que laa xam ndax li parce que am na Sénégal yoo xam ne gëmoon nañu ko boppam kon encore une fois nañu bàyyi di bàyyi bàyyi di dóor watisma problème Sarr bu ci amee bu ci Sonko amee problème moo ko teg boppam parce que wax nit ñi naan dama doon faju ji waxul dëgg faju yóbbu ko fa wax naa la ko fii kër fii ci kër góor gi am na ñetti fajukaay. mais amutoon xaalis. déedéet déglu ma wax la rek. no keroog booy déglu ci audio yi jë jëkkër Khadija gi am na benn bis mu jox ay Adji Sarr cinquante mille francs cinquante mille francs boo ko yóbbu am na benn fajukaay bu ñuy bu ñuy kinésithérapie bu nekk góor ga boo leen ko joxee ñu defal la cinq séances parce que dix mille francs la séance la moom mu nekk député bu ko doon fekkente ne moom moo ko doon def su demee huit mille francs lay fay quatre mille francs des euh, kii deux mille francs kon du ñàkk xaalis moo ko fa du ña du faju ma ko fa yóbbu ndax ñoom duñu faj kon encore une fois muy mbirum <coughs> aw làmmiñam wu rëy moo tax mu nar a am jafe-jafe muy mbirum Adji Sarr aussi ñàkk a def yëfi kilifaam moo ko parce que nag balaa doon ne ku dem foo war sa dem bañ jiñ la sol lu ñu war sa jiñ yaa ko teg sa bopp su fekkoon ne da da day maase wala yemoon ciy jéegam kenn dara du ko dal ndax demoo ma fa sa demoo fa sa jëkkër demoo fa encore une fois lu ko dal moo ko teg boppam ci ay waxam ak a dem mm-hmm. mais procès bi euh, honorable euh, gis neen carrément kilifa yu bëri ñu ngi artu par rapport ak euh, bile procès gis neen méga meeting bi nga xam ne son Sonko organisé woon na ko honorable xam naa suivre nga ko nga gis ne marée humaine bi nga xam ne amoon na fa <laughs> honorable yaa ngi reede bien sûr ba oh. yow ku ku defu tooxi doon ñu war laa atte nga naan damay mobiliser aw nit gis nga le procès du siècle am nañu ko tuddee procès procès du siècle ou procès projet du sexe sexe loolu la tudd le projet du sexe loolu la tudd et ce projet la aura lieu bis bi ko justice bëgg ne moom lay am kenn mënu ko te am c'est trop tard xam nga nit ñi taxawaay ba ay yenn société civile ak yenn nit ñi ba nañu waroon taxaw bu ñu ko taxawoon ca départ ba kon lii du ba muy jóg di lay naan da doon faju bu ñu ne ko waxoo dëgg ñooñu duñ faj dama amul xaalis ñu ne ko waxoo dëgg assemblée nationale mooy jël en charge député yi di leen fay quatre-vingt ba cent pour cent ba muy comp bu ñu ko waxoon dëgg kenn comploteur yaa ko yóbbu sa bopp kon jëf yi du ak si fii waaye ay société civile yu yu ragal loolu moo indi problème Sénégal fii mu toll tey mais honorable xam naa dégg nga sans doute discours bi nga xam ne euh, Ousmane Sonko keroog wax na ko si euh, boobule ndaje nga xam ne rassemblé na voilà euh, nit nekk à âge yu bëri mu mel ni aussi ñu bëri dañoo jàpp ne il faisait appel à l'insurrection ba ku mel ni comme euh, le doyen euh, Alioune Tine euh, di xam ne ne si ñu une fois ñu condamné Ousmane Sonko dina ragal sax ñu dem Alioune Tine waxu naa féq la et ce qu'il a dit c'est irresponsable mm-hmm. c'est irresponsable ce qu'il a dit à la limite c'est une incitation à la à la violence problème ay ay saak procès bi foog le projet du sexe foog mu am foog mu am parce que Adji Sarr doomu Sénégal la ko ñoom comme ñëpp moom nee na Ousmane Sonko moo ko violé mais Ousmane Sonko na dem tribunal bu fekkee ne yorul dara am nañ 14 avocats et man li ma gëm yi muy wax nii Sonko il fait de la fanfaronnade mais day day dem ci tribunal xamul tax. fanfaronnade rappelez-vous élection législative bi mu jubee. Mhm. daf ne woon élection yi du am wala bu amee benn du ci bokk wala seen liste bi dana bokk. est-ce que l'élection légale am na wala amut. xaar pare non non dafa li mu waxoon laa wax daf woon élection yi bu ci benn bennoo du ci bokk seen liste bi day bokk ci élection yi wala élection du am bennoo bokk na ci élection yi seen liste bi ñu gën bi ñu invalidé woon bokku ci élection yi te élection yi am na kon waxul woon dëgg danoon faroon ne rek dama ne amul ku yàlla bind ku tee procès bi mën a du am et puis dans quel pays yow nga def soo tooxi dem foo warta dem ñu jiñ la fa viol nga am fukki avocat ak ñeent nee na dossier bi daa widd mais dama tribunal tribunal boo fa demee buñ la joxul preuve duñ la condamné mais mais honorable lenn moo ëlëm xel nit ñi par rapport ak euh, ce procès parce que déjà euh, le rapport du médecin Alphonseni Gaye mu ngi xam ne ne carrément y a pas eu de viol te ce dossier c'est un dossier de viol non mel ni euh, si ton aussi rapport médical bu mal a établir viol mais si tonduur loolu mais si tonduur loolu kon bu jant bi non dama ne xaar ma la rapport médical buy rek établir viol amul mais mi rapport boobu ñuy wax rapport bi bi bi ñuy wax moom rapport bi gis nañ ci man yu ñu seet ñu bëgg a def vérifier ci moo ko moom wala moom ko defal ko ci sa mu ne sama xalaatu ko xam nga am matière de viol ñett yii dañ ko soxla bu ko tribunal amee mooy ndax Ousmane ko dem na dem xam na ki ko ki ki ko jiiñ wala déet bu njëkk dane woon xawma ko ndax dem na fa wala dem fa mu ne woon musuma faa dem jékki-jékki bàyyi mu effacé ko wax waxoon ay xaritam ne leen mu faa dem ba ñoom ñuy wàcc alxuraan ne musu faa dem mu jékki-jékki na daanaa fa dem daana xale bi daana ma bës xam nga donc la fait mu dem fa ba élément da boo xam ne maa ngi ci sukkandiku bu fekkee da ngay da topp lem bi ci des mooy ndax sëy nañ wala sëyuñu xale bu jigéen bi gis nañ ci ci awraam man yu xale bi d'accord na ci sëy boole d'accord bu ci d'accordoon du porte plainte ndax aniw bu Sonko la wala déet kooku test ADN moo ko waroon moo war a mën a leeral mu lànk ne def par test ADN man di Adji Sarr su ma porté woon plainte la justice que. à chaque fois la justice ne fait pas les tests ADN ça c'est les médecins qui le font day demander rek ñu defal ko ko. mais bu jàppee ne carrément dafa nekk euh, face à un complot. parce que ah, complot bi waxul dëgg day waxu naa dafa tay ne la complot bi waxul dëgg. comploté wu ko et am na benn responsable pour di bokk ci front national de résistance ci jamono jooju ñoom ñoo ko wax ne ko mbir mi boo ci bëggee dénk boo ci bëggee génn dénk ko jiñ ko Macky Sall. ah la. ah boo jógee fii ñoo ne waa FNR front national de résistance ñoo toog di ko xool ñoo ko jàmbaat mbir mi boo ci bëggee génn jiñ ko Macky Sall boo ko jiñee politiser ko. mu daal ne kon Macky Sall ak Bassirou Guèye Antoine Diome ñoo ma doon complot Ousmane Sonko mi doon wax loolu moo la gën a xam ne waxul dëgg. même waa waa même ñi ma àndal ci Yewwi Askan te fekk war réunion ba xam nañ ne waxul dëgg ñoom ñoo ko digal maintenant pour seetal seetalu deram pour ab si ay siyam du tas ñeent yàq ay milliards ci alalu réew mi ça si inacceptable mais est-ce que euh, honorable bu ñu xoolee aussi euh, personnes yi nga xam ne tudd na leen par rapport à ce dossier. kan moo leen tudd euh, Ousmane Sonko. Euh, euh, voilà ñoo xam ne dem neen témoigner même sax des vidéos ku mel ni ko Mamour oh. Diallo. ainsi de suite. finalement jàpp jàpp jàpp bu ñu ko yàtte ay wax yooyu kenn du ko fa wax. Adji Sarr moo ko ne danga maa violé ah, yor nañ bu bu yorut bu yorut preuve yu ko ne Ousmane Sonko moo ko violé fa la yëf yi comme bu defoon test ADN bi te te man yu mi ne ci ay awra Adji Sarr yi du bosam fa la yëf doon yem maintenant bu ñu demee tribunal la su ñëwul bàcc ci làmb ji ay preuve yu leer su ko kenn du ko condamné kenn du ko condamné kon encore moo war a bàyyi yi muy def di fen ngir eh, ay séyam bañ a tas di fen ngir ay nit ñu jàpp ni nit ku baax la di ko gëm loolu c'est inacceptable bay rey ay doomu jàmbur te moom moo ne woon mosu faa dem xamu ko da di génn waa war naa tax nit ñi xam ne kii am na lu que barab boo daan dem te nit ñi xam ne depuis bu bu ma fi jógee ñu ne ma ndax daa nga dem seen xam nga ñaax bi tey mën la gën xam ci àdduna xam nga tuuti ma ne ah kay ndax xam nga mbubb ma ne bien sûr ndax xam nga ñoom ñëpp c'est comme ça waaye sëñ bi yow barab boo daan dem ñu jiiñ la fa viol ngay jéeg jig dañ ma complot te complot bi waa waa front national de résistance ñoom ñoo ko ne defal waxal complot soo ci bëggee génn kon moom mi ko doon wax xam ne ne waxul dëgg et c'est dommage fukki nit euh, mais mais honorable bu ñu xoolee aussi euh, gis neen sax euh, ay nit yuy dem men comme le doyen Madiène Diop gis neen sax. Madiène Mbodj dem na may Madiène Mbodj waaw dem na sax bay comparé bi le procès ak bu Dreyfus bi gis neen yow. saaga Dreyfus. il a insulté la mémoire de Dreyfus. pourquoi nga wax loolu honorable Dreyfus était victime d'un complot d'État notamment de l'armée française sur fond d'antisémitisme parce que juif la woon ñu ko ne dafa doon jox ay information secrète à l'Allemagne te dara du ci dëgg xale bu jigéen na ko ne danga maa violé bu ko daan bës moo ko danga maa violé comparer les deux c'est pour balanger Ousmane Sonko mais c'est en même temps salir la mémoire de de de, de Dreyfus mais ne problème n'est pas ma jéy na ma jéy Mbodj pour la première fois dans l'histoire du monde un homme de gauche di jàppale nit koo xam ne dañ ko jiiñ viol contre une fille boo xam ne yaayam dafa faatu bàyyi mënulu ko dara mu ñëw Ndakaar doon jàng doon mbindaanu ñu dugal ko ci bés góor ba lii fekk ko ci parce que un homme de gauche mooy jàppale nit ñu néew doole ñi waaye no homme de gauche bi am na ñi ñi am doole nekkatul homme de gauche il a perdu, il a oublié ses combats, lui. Et c'est triste, et c'est dommage. Mais, mais honorable, tout est contre aussi la fille. Déjà, neen ay wax yu waroo yu bëri yoo xam ne quel pays aji saax newoon na ni dafa ëmb njàpp maa ngi lay ñaanal nga gudd fan trop allahumma amin yàlla nga gunge say doom bañ doon boo toogatee xool say doom xool leen ne bu ma faatu woon lii dal aji saax na leen dal xale bu jigéen bu yaayam faatu bàyyi mënul ko dara mu ñëw ndakaaru di naanu ñu dugal ko ci bési góor ba li fekk ko ci xol bu dara nekk bu ne war nga ko yërëm néew mu nga faral moom mais war nga ko yërëm kon encore une fois oh, dans cette affaire bu Ousmane Sonko demul woon fa demul woon foofee ñu doon bësloo bàyyi fay jéegam romb ñetti barab bu fajukaay kër cité kër góor gi kon kenn du ko jiiñ pour la première fois dans la classe politique sénégalaise ñu jiiñ nit viol ci situation mel nii bu mel nii dem ci salon boo xam ne ay ay bigukaay la nga naa dem fa doon xam na yàlla jéppi na ko <laughs> juste rappeler euh, internautes yi euh, nga xam ne ñoo topp du ñu suivre euh, maa ngi ak honorable député Moustapha Diakhaté ñuy waxtaan ba tey par rapport ak les d' actualité sujet d' actualité yi nag l' affaire Adji Sarr Ousmane Sonko ak l' affaire Sonko mam Mbaye Niang da ci am solo bu baax ndaxte rek ay procès yoo xam ne ñu bëri dañoo ragal. maintenant nag maa ngi dégg ay nit yoo xam nee nañu. Mhm. dañoo bëgg dox ay tànk. foofu laa bëggoon ñu ñëw par rapport ak sa dialogue. oui mais dafa ci dégg yu garaaw. ah am na ñu xam xam nga lan la ñuy wax. Mhm. noonu nañu ah, nañu yemale maanaam mbirum procès bi buñ ko def ah buñ àttee Ousmane Sonko diggante ma ma mbay buñ àttee diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr. mais bu ñu xoolee aussi xaaral xaaral allez-y honorable. lañu teg ci table gi moo garaaw. luñ teg ci table bi des mooy ñoom Khalifa nañ leen bàyyi ak Karim nañ leen bàyyi ñu bokk ci élection yi. ma xal nañ ko autorisé mu bokk ci trois mën na am troisième mandat. sérieux c'est gars yi ñu ngi négocier loolu. si in ñu ko bëgg a ñu ko bëgg a dox dama ne si in nag sax il faut qu'il arrête projet Adji Sarr ak ak Ousmane Sonko muy le projet du sexe mënut a ñàkk day am. le procès procès Mame Mbaye ak ak Ousmane Sonko muy projet diffamation day am. honorable le procès du siècle la. du sexe pas du siècle c'est le procès du sexe c'est un de sexe pas du siècle <laughs> c'est un procès de sexe waaw. D'abord, le siècle vient de quoi On est à 20, 20, 22 ans du siècle. Il reste encore 78 ans. Et en fait, c'est le procès du sexe. Opposant Ousmane Sonko à son accusatrice Aïssa. Il l'accuse de viol. L'imam. bu bàyyi bu toogoon këram wala bu jógee mu kër góor gi mu dem ci kinisi cabinet tirage kinisi tirage ba fa nekk ñu faj ko wala ci beneen su beneen beneen beneen hôpital ba fa nekk bu mag clinique privée ba fa nekk wala beneen ba ca des waaye romb leen fa ñoom ñépp jëm seen lazar dem di fekk lëndëm ay xale yi fuy xale yi ngeen nekk yoo xam ne si buñ mënee bind seen tur ci lañ yam dem fay faju loolu daal respecté wu waaye bu leen respecté woon du wax lu mel noonu. <laughs> honorable euh, gis neen ce qui s'est passé au mois de mars dernier. ba sax euh, mun nañu wax ne yënguloon na euh, fu mu toll ni euh, la république tey jii même histoire bi la parce que deux ans mu ngi traîner voilà ak tout ceci yi nga xam ne dégg nga ko est-ce que tey jii bu ñu bëggee apaisement am si dëkk bi comme ni ñu waxee sous région bi mun nañu wax ne Sénégal rek moo fi desee li nga xam ne moo nekk apaisement te xale yi ngay gis voilà c'est des c'est des gens assez déterminés te dañoo gëm ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko tey ne serait-ce pour loolu est-ce que waruñoo jël procès bi teg ko ñi moo ne woon élection législative du am bu fekkee seen liste bi seen liste titulaire yooyu bokk ci moo ne woon législative élection législative du am su fekkee euh, Benno Bokk Yaakaar bokk na ca seen liste bokkul Benno bokk na teewul élection am. bu mm-hmm. day maanaam bu procès accès mu dem ci procès ba day négocier. il fait de la fanfaronnade et puis d'ailleurs boobu bi mu ko waxee ñoom ñoo ko feelu woon naan non il faut des élections inclusives comme cette fois-ci aussi Alioune moo ne bu ñu ko bu ñu ko jugé guerre encore Alioune toujours après à aider Ousmane Sonko mais aussi ne serait-ce que même en la mémoire des gens et en piétinant les lois de la République ça on l'acceptera pas honorable bi ñu demee ba ay justiciable ñu dem ba mel ni comme euh, dañoo am euh, li nga xam ne mooy ñaal ñàkk kóoliteef si justice euh, loolu qu'est-ce que ça veut dire loolu est-ce que wartoo nga xam ne moo nekk ñëpp la justice sénégalaise a besoin de grandes réformes finalement est-ce que yu fi jaar yëpp lañ leen jiiñ ko def Khalifa Sall lañ ko jiiñ moo ko def Khalifa Sall lañ ko jiiñoon moo ko def fausse facturation 113 fausse facture la signé naa dama ci jënd ceeb ak dugub te mosu koo jënd la jàppe moo ko def Karim Wade il s'est enrichi de manière illicite alal ju dul jeex ñu gis ko mu ne moom mu ne waaw ñu ne foo ko jëlee muy wax naxas naxa naxa loolu yoon koy tere maintenant le problème li xam ne moo jaaxal nit ñi jaaxal moom man mi war a comment se fait-il que Khalifa pour enrichissement pour détournement de deniers publics ou fausse facture alors que c'est une pratique très courante chez les maires peut-être ba Karim Wade aussi ko waroon topp ñu seet ci ko loolu mën na doon nga mënum xel mais loolu jutti wut dara ne ma mbay ñaŋ Ousmane Sonko daf ko diffamé xadi kii nam to je aji Sarr nee na man xaw ma la wax dëgg la xaw ma du la wax dëgg la nee na Ousmane Sonko da ko violé xaw ma dara mais man li ma xam mooy Ousmane Sonko moom li mu wax waa Sénégal dara du ci dëgg faj yóbbu ko fa woon ñàkk xaalis tax ko faa dem ko kenn complot wu ko or fen bii mu fen jën jëf yi ñoom Macky Sall ak Antoine Diome ak sëñ Bassirou gi moo tax li am ci réew mi am ci ba fukki nit ak ñeent faatu ci alal ju di jeex yàqu ci effectivement la justice sénégalaise doit être réformée pour man li ma gëm mooy le président de la république dafa war raxas loo xam ba mu set justice man amul nekk du sama problème ñu créé le conseil supérieur du parquet président de la République nekk ak ministre de la justice parce que le parquet mission mooy mettre en en en en pratique en en appliquer la politique pénale définie par le président de la République mais par contre ñi nga xam ne ñooy juge di àtte ak président de la République. mu bañ fekk seenum ndaje. loolu mooy man moom boobu boobu gis-gis la am ci séparation des pouvoirs mais malheureusement au Sénégal depuis 1960 benn pouvoir moo fi am muy le président mais c'est pas parce que la justice am na ay war nañ koo réformer. que kàccoor bu ñu def tëj soo tooxi doon bu ñu la bëggee àtte nga naan wóoluwuma justice. diggante euh, Macky te yow boo wóoluwul justice boo amee problème porte plainte nee day porte plainte sëñ Bassirou Guèye nee day porte plainte Adji Sarr ak ak xaw ma lan Adji Sarr ak keneen nee da leen di porte plainte te ne wóoluwul justice. mais c'est du n'importe quoi il faut arrêter ça. diggante euh, l'épisode euh, Macky Sall ak kii di Ousmane Sonko euh, gars yi topp taarix dañuy dem sa bay méngale aussi diggante Senghor ak kii di Mamadou Dodo Mamadou Dia est-ce que nous en sommes là. non non non dañoo nekk ci tax ma la mémoire de so de la vérité Senghor Mamadou Dia c'est que Senghor moo coup d'état Mamadou Dia. Mm. nangu pouvoir bi ci moom tëj ko ci kaso bi Senghor ko tooñ ba tooñaat bi ko <laughs> léegi lu wax Macky Sall tëjut Sonko porté wu ko plainte Adji Sarr moo porté plainte <laughs> Ousmane Sonko Macky Sall porté wul plainte Adji euh, Mambaye moo porté plainte kon encore fa bëgg ci dugal Macky loolu mooy li ñuy wax la politisation mooy la ko waa Front National de Résistance waxoon ne ko yëf yi soo ci bëggee génn na nga ko politiser wala ne dañu laa bëgg dañoo bëgg feex ba doo bokk ci élection yi mais kon politisation bi lu ñu créé la mais du lu du la am et c'est dommage que les journalistes n'ont pas fait les investigations nécessaires pour xam ce qui s'était dit dans cette réunion du front national xëy na bu ñu ko xamoon te am fitu wax ko sénégalais yi kon ba ne dañu fete na boor en fait cette affaire de complot c'est un instrument politique pour se soustraire d'affaires et en même temps pour s'ennoblir parce que il vaut mieux être condamné par un complot politique qu'être condamné pour avoir violé une fille pour un homme politique Oui, oui. <laughs> honorable eh. honorable euh, je pense que même boo livrul liirul livre Cheikh Yérim bi euh, am nga écho yi nga xam ne euh, am na si presse aussi parti bi nga xam ne jagleel na ko le président Macky Sall ak it famem Macky Sall face à l'histoire mu ñëw si ay passage yoo xam ne mu ngi relever rek li nga xam ne moo nekk la politique du président de la République Macky Sall am aussi passage yoo xam ne rek jagleel na ko ki nga xam ne moo nekk njiitu ba tey l'affaire Mœurs aussi muy ñëw aussi contre ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko euh, ba mu dem sax euh, ba ne da koy porter plainte euh, du ma question finalement est-ce que c'est pas de l'acharnement contre la personne de Ousmane Sonko. kan Cheikh Yérim moo acharné wu ci Sonko. parce que à chaque fois. quand on parle d'Ousmane Sonko automatiquement c'est on parle de Mœurs. Cheikh Yérim moo moo acharné wu ci Sonko nga bëgg a wala. Hmm. écoutez man bi d'abord. mais mais vous avez. xaaral xaaral maa ngi franchement Euh, gu ma ko wax dëgg yàlla ma ko te man nag livre bu ma ko liiru du ma ko commenté. Mhm. maintenant loolu nga wax de daf ko wax ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko nee na da koy porter plainte. Mhm. ah kon léegi wóolu na justice bay porter plainte. bisimilah nañ dem projet bu Cheikh Yérim yoru ci preuve yu ma ne li mu wax li mu wax li yu ma ne li mu wax du dëgg ah Ousmane Sonko am ci moom daal fekkee Cheikh Yérim indi na projet nag boobaa indi na preuve ah boobaa ñu gisee ko noonu mais encore puisque liruma ko duma ko commenter man je lis pas je ne commande pas un livre que j'ai lu parce que les bonnes feuilles là man doyuma ci livre un livre dama koy lire sama bopp horizontalement verticalement et diagonalement. Mhm. mooy door mën a commenter livre ñetti yoon lay lire livre ñetti yoon laa koy lire door koo commenter pour le moment lire guma ko sax benn yoon. honorable vous êtes un bon républicain si ñu la xam. je suis de la république. voilà Euh, tey jii boo gisee dans une république comme le Sénégal nga xam ne dañoo ñu citer un exemple tey jii euh, euh, débat yu ñu gën a débattre si si télé yi moo nekk des débats de mœurs te tey jii ñu nekk si air boo xam ne ñi ngi wax wàllum pétrole beeg gaz année bi 2023 dañ war a commencer li nga xam ne moo nekk exploitation bi qu'est-ce que ça vous fait ak tamit lan moo arrivé Euh, si euh, république bi ba tey ji euh, débat bi war a situé foofu. oui je crois que le problème c'est un problème de classe politique. parce que coow li coow li coow la da la wala coow la. man pour la première fàttali moo gis un leader politique ñu di ko suivre poursuivre pour diffamation nit di ko poursuivre pour diffamation ci loo xam ne vraiment waxu caaxaan la bi c'est quoi. peut-être c'est le projet ci lu ma xam un politique. un, un député, candidat, ancien candidat à la président de la présidence de la président gën a ko jigéen di ko jiiñ weer bañ di leen atte kon du ma mën a si globaliser c'est pas que lii am na que ma globaliser que ni dans l'ensemble la classe politique la yàlla xam ne non am na ci ñoo xam ne ñu ngi def effort di génn génne ay xalaat di def ay réflexion di bind ay livre pour le Sénégal ay mhm. malheureusement tawul caaxaankat bi tax na sénégalais yi teluñu sax déglu ñuy wax lu am njëriñ mhm. c'est loolu nag yéen journaliste am ngeen ci responsabilité bu rëy malheureusement comme vous dites euh, vous ne parlez que des trains qui n'arrivent qui arrivent qui n'arrivent pas <laughs> eh de lui tous les jours ku fi ñëw toog sax moom ngeen koy laaj alors nit ñi am nañ gis-gis ci réew mi am nañ bëgg-bëgg am nañ changement yu ñu bëgg nit ñi réformer ko mais ku ñëw ku ne loolu rek ngeen koy laaj bu ñu ñu ragal ñi duñ ci ñemee tontu ak ñi nga xam ne am nañ fit nag di xaru ba ñu ko leen saaga ñoom di ci wax seen xalaat. mais c'est des sujets d'actualité déjà le procès. son procès du siècle. mais c'est un sujet d'actualité. que nit génne livre def ay propositions ku mel ne Abou Abdou Abdou Aboubacar. Boubacar Boubacar génne livre lire ko ma ko mais je vais le mhm. bon ñoom ñeneen ci ngi jéem. ñi ngi def ay tournée di expliquer Khalifa Sall mi ngi def tournée euh, Abdourahmane Diouf mi ngi mi ngi def ay panel je crois que bon je crois que nu mu mi ngi def tournée mais on se focalise sur kàccoor bi ak ak ak kàccooram mais finalement ba ba. mais jeunes yi dafa mel ni comme ñoom projet euh, Pastef bi moo leen soxal. mais projet Pastef mooy lan man projet Pastef xaw ma ko di fenn ak sos ak fitna mhm. loolu mooy projet fenn sos yee fitna loolu projet. changement. mais ban sens lan yow loolu dégg Ousmane Sonko wax ne lii da koy san ci réew mi. Ndiou Ndiaye ji corruption mais mais Ndiou Ndiaye moo jiitu. rappelle-toi affaire 94 milliards yi d'ailleurs léegi maintenant le bi terminé delloon nañu boobu seen suuf. naan Ousmane Sonko wax 46 milliards yi nga xam ne banque ba mu nekk na ko wax. bi muy jiiñ Mamour Diallo 94 milliards dara du ci dëgg 94 milliards yooyu suuf soosu ñu delloo seen borom Ousmane Sonko bëggoon na ci 12 pour cent muy environ 11 milliards su ko amoon kenn du dégg baatam. mais malheureusement moi je ne comprends pas daal à damay damay ak ma est-ce que presse sénégalaise yéen jinne pesu est-ce que jinne pesu leen. déedéet waay. ah kay jinne da leen a pes euh, njàpp njàpp bi ak caaxaan kat boo xam ne waxi caaxaan sa saa caaxaanam yooyu ci ngeen bëgg nit ñi di jox saa su ne sëñ bi tëb le le procès du sexe et le procès de la de diffamation aura aussi Et là, moi, je lance un appel solennel au président Macky Sall. S'il doit céder un iota sur ces deux questions, il n'a qu'à démissionner. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Ah oui. Il doit être ferme. yoonam nekkul ci diggante proche Adji Sarr ak euh, Ousmane Sonko yoonam nekkul ci yoonam nekkul ci diggante Mame ak ak Ousmane Sonko lui la seule chose dont il doit s'occuper c'est la sécurité de Sénégalais c'est le respect de la justice pour justice comme boo tribunal bu ñu la war a jëli na na jox ndigal gendarmerie ak police ñu jëli la loolu moo ko war maintenant su fekkee dañu jàpp dañuy taal réew xam nga réew mi nag ku ko taal bu day ndey dee dund dajay tàkk say jabar tàkk ci nga tàkk ci gis nga ku la mbas maa ngi ñëw danga naa ko gaaw ñëw mais nag daal ñoo xam dañoo ragal bu bu bu ñu tiitee rek commencé loxo réew mi dana tàkk ku la ne réew mi day taal ku la ne ko indi ne ko xaar xaaral ma ma yokkul ma abal ma la essence ku la réew mi day tàkk ne ko xaaral ma may la essence y avait 14 morts honorables. Sonko moo leen rey Sonko moo leen rey leen ku dul ay fenam doo nga leen rey parce que bu ñu wuloon complot dañ koo complot Sénégal du ñu wàcc mbedd mi su ne Adji saar moo complot kenn du wàcc mbedd mi <laughs> wala sax mu seef si si di mbay la xaw waaye ñim ne ñoo complot loolu tax ñu wàcc mbedd mi fenn ba léegi maintenant ginnaaw Sénégal yi nag seen seen xel yi dafa dafa dafa ràgg. maanaam ku leen fen fen wu leen neex mu leen gënal fen dëgg gu leen di am njëriñ. Eh, mais ñu topp ko mais nag fekkente ne dañoo war a rey un million de sénégalais pour dëgg taxaw ne un million mhm. ku la ne dëkk bi dañ koy taal da nga naan kaay ma may la ma la almet kaay ma may la essence parce que dëgg bu tàkkee dana ci tàkk moom ba jeex ay doomam ak i jabaram. kuraak nit ñi dañuy toog seetaan ñu ñu ñu taal nit. sénégalais yi boo ku ne kër la nekk ci dëkk dëkk faa ko nit. dans des propos irresponsables qui envoyé gouvernement bi na teg chaque magistrat euh, des militaires ça c'est pour terroriser les les, les magistrats et ne serait que pour ça ils devaient être arrêtés et poursuivis. ah oui mais bien sûr que depuis kañ nga mas a dégg Sénégal un un un un politicien qui menace de au meurtre du président de la République. naan danaa ko rek wala dama ne moom mooy dee. mënut a àgg ci Macky Sall bu ci ñoom ñaar ko waree comme dee moom mooy jëkk a dee. il faut arrêter pour tiital nit ñu bu ko defee ragal yenn yenn nit ñi jóg commencé wéy indi jàmm jàmm gën jàmm ci la lépp xaj nañ bàyyi yëf yi foofu kenn du ko bàyyi foofu ma mbay dana at dana ko yóbbu tribunal daañu ah, daañu leen atte aji saar wa zalika naka noonu que nag quand même jëf yi ndax coow li muy bi muy xëble su boobaa aji njàpp bi tey yaw man ak man ak samay famille ak yow dinaa leen danañ génn réew mi ñu dem fu ñu dëkk parce que boobaa état amatu fi c'est vrai honorable ñu wax léegi euh, par rapport ak euh, politique ba tey euh, mais pour parler de l'Assemblée nationale le cas Mimi Touré aussi honorable gis neen ñu inversé ko aussi si postam de député ñi def loolu nag moo nekk le groupe Benno Bokk Yaakaar ak Wallu Sénégal ñu gars yi jàpp ne dañoo violer les lois de l'Assemblée nationale en tant qu'ancien président du groupe parlementaire. affaire <laughs> baax de yaa non dinaa ree quoi parce que xam nga ñun waa Sénégal dañu dafa bu mbir xewee su ko doon na baax nit ñi def effort delluwaat démb gis ba xam mbir mi lan la. Mhm. gis nga article bi nekk ci constitution bi dafa am cosaan. 1978 mhm. parti démocratique Sénégal dafa dem élection am 18 députés. Mhm. Senghor nekk ba 1980 31 décembre 1980. mu démissionné. ñu installé Abdou Diouf le 1er janvier 1983 81 diggante 1981 ak 1983 fukk juróom-ñeenti député PDS bàyyi PDS dem fekk parti socialiste. Mhm. groupe PDS daanu. Mhm. Ablaye Wade ne fas naa yéene su ma faloo danaa fi dindi transhumance parlementaire. Mhm. ci loolu la indee constitution bi article 60 ne bépp député bu jógee ci sa parti dañ lay da dootoo bokk ci. dañu dañuy nangu sa mandat. mais mais elle elle n'est pas de. xaar magal xaar magal xaar magal xaar honorable. disposition boobu la moom la règlement intérieur jëlaat mais préciser wut. Mhm. lan mooy démission. le règlement intérieur lan mooy démission daf ne rek un député qui démissionne de son mandat. la constitution non plus la constitution mën na ko bañ a mais règlement intérieur na ko préciser. Mhm. mais en réalité lan lan mooy esprit bi. mooy nomadisme parlementaire maanaam ay ànd ak nit ba falu bàyyi leen fa dem loolu Ablaye Wade doon xeex. mais wax dëgg yàlla bu ñu waxante suñu digganteeg yàlla madame Aminata Touré nag bàyyi na waa APR nag bàyyi na leen. mais na maintenant li nga xam ne ñun politiciens moom la ñu war a bàyyi di tricher avec la loi man de su fekkee damaa yor ndomba tànk APR dem ba doyal sëkk ci APR dama leen bàyyi seen ndomba tànk loolu mooy mooy mooy ngor. du fa toog bi xaar mukk ñu nangu ko. je crois que le, la jurisprudence Macky Sall tout tout homme politique doit s'en servir ba ko Pérez di bund xatal na delloo seen député ak seen poste maire. il a été acculé. non il na il pouvait il il pouvait rester kenn kenn nañ ko fay jëlee mais il a démissionné de son poste de, de député il a démissionné de son poste de maire de, de encore une fois je crois que li nga xam ne mooy esprit loi bi mooy la le nomadisme parlementaire la transhumance parlementaire ñu xeex ko. C'est pourquoi je crois que dans le il doit, on doit préciser davantage la notion de démission parce que notion de démission kenn définiru ko ginnaaw kenn définiru ko nag ku mu neex mën koo gisee na ko gis encore une fois jàpp naa li dul nga xam ne moo jaaduwul mooy ànd ak def campagne ba gagné parce que defuñu le président de l'Assemblée nga nga génn dem. c'est pas mais elle s'est sentie honorable aussi. kan moo ko trahi kan moo ko kan moo ko joxoon. waaw ñu doon fal ñu doon ñu doon dañ dañ dañ ko faloon pour dañ ko faloon député pour mu nekk président assemblée mais il faut arrêter il bu ñu la bu la Macky Sall bu la trahiré da ngay lu mu am doyal nga gedd kook moom bàyyi koog moom. soo amee sentiment que Macky Sall daf la trahir da koy bàyyi lu mu am da nga koy suur këll. maintenant dégg naa ay nit ñu naan way as euh, constitution bi coalition de parti la wax. dañ jàpp bi tey constitution mënul wax coalition. ci nit parce que nit du du mooy bokk ci coalition. coalition ay parti ñoo ciy bokk parti ba la boole ci coalition bi soo ko bàyyee ba bokkatoo ci coalition boobu loolu lay tekki mais nit du bokk ci coalition nit ci parti politique lay bokk. kon encore une fois jooju wax moom ñu koy wax du am solo mais li am solo rek mooy l'esprit nañ ci dellusiwaat il faut combattre la transhumance parlementaire. d'ailleurs man bi ma nekkee président de groupe maa dugal ci règlement intérieur assemblée képp koo xam ne bàyyi nga sa groupe dootoo mën a bindu ci beneen groupe parlementaire c' dans le siège c' dans la continuité de de l' initiative bi Abdoulaye Wade jëloon 19 euh, avec le référendum de 2001 pour nag euh, député yi kuñ ci faral ci nga toog sa parti politique malheureusement la le texte n' est pas clair dans la constitution tout comme dans le règlement intérieur attelant que les députés dañuy tricher ak ak la loi mais kenn ku ne xam ne ne Aminata Touré na quand même bàyyi bàyyi na affaire. finalement euh, est-ce qu'elle n'est pas victime aussi euh, de ses positions à l'Assemblée parce que gis nañ chaque fois moom bu yëgee euh, dafay xew kàddoom yu bëri da koy dem si wàllum li nga xam ne moo nekk troisième mandat gis nañ na fan yi ñu weesu sax moom ak collègue am euh, Guy Marius Sagna ñu amoon benn question d'actualité boo xam ne rek samploon nañ ko ah gouvernement bi ah ngir rapport Cour des comptes boobu ah, xam nga le fait que yu contre son parti loolu man ça me gêne pas parce que quand même député n'est pas un esclave de son parti donc am na droit xalaat lu ñuy wax mais li nga xam ne moom la constitution bi tere mooy bàyyi sa parti di constitution bi tere wu député wax lu sabaanoog li parti am di wax mais li mu tere mooy bàyyi sa parti te ne wax dëgg yàlla ku wax mais n'a pas démissionné honorable non non da non <laughs> dama ne démission de mooy démission ah léegi démission yow lan loolu mooy démission loolu réglementaire bi wax ko. tubaab kayit la xam constitution non non constitution boo ko réglementaire waxut ne démission da ngay bind. waxut loolu. honorable démission démission. parti bi nga bokk moo koy signaler assemblée nationale. on est dans une république. déglu ma wax la démission. parti bi nga bokk moo koy wax président assemblée nationale. ne ko diw bàyyi na parti bi. ñu door pour ensemble door ensemble door engagé la la procédure de de de déchéance mais con démission constitution waxul lu mu doon. assemblée euh, euh, réglementaire waxul lu mu doon kon boobaa ay interprétation la ni nga amee droit nag interpréter ne ko de émission mooy bind jàppal na ñeneen aussi am nañ sañ-sañ ne déet mën naa bañ a yem rek ci bind am te koon bind ci la bokk mhm. am solo restons dans l'esprit bi nga xam ne moo tax président Abdoulaye Wade dugaloon ci constitution bi l'article 60 ne dañuy lutter contre le le nomadisme parlementaire mhm. naa nag man bon écoute le fait même buñ ko fa bàyyi woon gëwuma lu muy wàññi dara waa benn bokk parce que même ñoom wote nañ seen budget sans zèle motion de censure bi rejeté nañ ko sans à la limite son départ wàññiwul dara benn bokk yaakaar wàññiwul dara affaire bu ñu ko fa bàyyi woon dina leen wàññi dara quoi. ndax même par élégance républicaine. oui oh, mais la, la première élégance. parce a pas la première élégance républicaine c'est de respecter l'esprit des lois. l' esprit de l' article mooy boo bokkee ci parti ba dem élection ba dem assemblée nationale nga xam ne bu waroo ko bàyyi wala boo ko bàyyee nga xam ne nga assumer ko mais mun loo ne bàyyi naa ko ba pare nag bàyyi woo ko c'est-à-dire mbëtt du ma naan du ma lekk ci euh, yàpp waaye dina naan ci ñeex mi loolu moom wax dëgg yàlla baaxut. <laughs> ça ce n'est pas aussi de l'élégance républicaine. Mm-hmm. L'avenir politique de Aminata Touré parce que gis neen mu def conférence de presse ne dina def face à kii nga xam ne moo nekk président de la République Macky Sall di xam ne carrément que elle, elle n'est pas n'importe qui parce que xoolee aussi euh, parcours am lu mu euh, ànd ak Macky Sall elle a occupé aussi euh, des postes ministériels yu am solo est-ce que la dame peut faire mal à, au président Macky Sall. moi moi qu'elle fasse mal à Macky c'est pas mon problème. waaw ah, vraiment c'est une affaire. mais si on analyse. Euh, voilà. la seule chose qui m'intéresse c'est de faire mal à la République du Sénégal or Macky certes c'est le président mais il n'est pas la République or faire mal à la République c'est d'abord tricher avec les lois de la République loolu moom baaxut maintenant diggante moom Macky Sall ça c'est leur problème c'est pas le bien. sama yu ci bañ ma dàqee ci même alliance pour la République néew ma sax massa foofu seen affaire la quoi vraiment ça m'intéresse benn la dàqee massa wu la woon waaw massa sax dégguma moom nga xam ne moom dafay défendre li ah, mooy injustice mu défendre ma fenn man mm. <laughs> ci public wala privé <laughs> bon saa c'est son problème <laughs> te man xam naa niñ ma dàq bon ci parti bi laay wax ah mais au niveau de de la du gouvernement ça ça c'est normal Macky Sall moom moo ma fal moom ma moo ma ko dindi am na ci droit Par contre, les conditions dans lesquelles j'ai été exclu du, de l'Alliance pour la République, ku bokk alliance pour la république te tuuti deret di daw sa yaram xam nga ne le règlement intérieur a été violé et le et du parti je n'avais pas entendu. lu taxoon ñu dàq. aussi alliance euh, pour la république. ah, euh, ah sama tëradi la xam nag ah, moom damay wax li ma xalaat. ba <laughs> damay xaw a tëradi rek. mu damay wax sama xalaat parce lu njëkk li mooy problème mandat bi ak bi ñu bi ma créé sama structure tudde woon ko euh, taxaw suñu ah, bëgg nag contester la gouvernance du parti par Macky Sall tout seul. eh bien mu daal di joxe ndigal ay ñetti nit dañu ne dàq nañ Moustapha Diakhaté de manière illégale. ñu dàq la à ah, ah, l'époque vraiment dégguma dégguma kenn daal <laughs> nga dañ ma seetaan ak moom bon maa ngi sant yàlla nag ci dàq gi. ci dàq gi parce que xam naa ne baax na ci man. ah oui. absolument. ñu ah, ñu bëri sax xam nga booy wax sa dëgg bañ dàq la ci sëñ bi da nga war a sant yàlla. ñu bëri dañoo jàpp ne sax yow réeroo ak Macky Sall. non bu ñu kon du ma dàq. bu ñu réeroo woon du ma dàq. maintenant nag man dama am problème personnel ak Macky Sall amu problème personnel ak kenn. Uh-huh. amu problème personnel kenn su ko sañoon tey ma delluwaat ci parten bi. moom Macky Sall. wallaahi wax sama xel xalaatu ko nag. dootoo demaat affaire mu ko ci na jeex na. mais nag ri moom lañ dénk Sénégal lépp luy defar Sénégal su ma xalaatee dinaa ko wax lépp lu yàq Sénégal su ma gisee dinaa ko lii ngi yàq Sénégal. mën naa jóge ci moom comme mën naa jóge feneen c'est comme ça que je que je vis parce que nag euh, pour man politique mu ko pour ay teranga personnel def ko maa ngi sant yàlla daal. sant yàlla. honorable débat troisième mandat bi euh, bokk na si lu tax nga ñu dàqoon la. <laughs> dafa mel ni comme fu mu toll nii. Euh, <laughs> dañ koo gën a. dañ koo te tamit lu si jaaxal nit ñi mooy la fait ku mel ni Ismaïla Madior Fall léegi mu mel ni comme ku donné carte blanche. waa xam nga du moom mooy jox carte blanche bi jox mooy jox carte rouge. mais bokkoon na si acteurs yi nga xam ne référendum yi. non non dans cette affaire là. <laughs> la vraiment la seule personne concernée. c'est Macky Sall pour man ñi wax ñi des yëpp amul solo c'est Macky Sall mais ay Ismaïla keneen kuy wax yooyu yëpp amul solo c'est Macky Sall. nga ne waa ji day dem troisième mandat. wax dëgg yàlla musuma ko wax. ah mais dàq na ko si ko wax. wax yàlla man damaa seere devant suñu borom subhanahu wa taala que Macky Sall musuma ne musuma juñu sax daa bëgg a nekk daa bëgg a nekkaat candidat waaye nag lenn li xaw a jaaxle mooy. <laughs> sama classe gi bu ñu nee mën mënta am troisième mu dàq leen ñi ne mën naa am mille ba di ko investir sa waxu dara loolu mu xaw naa xaw na maa jaaxal waaye nag wax dëgg yàlla su ma sama diggante suñu borom subhanahu wa taala man ne du day bokk maintenant su ma sañoon nag du bokk pourquoi waaw parce que loolu expérience bu tey waxee kilifa kàddu bi non pas kàddu bi sama digginu constitution bi la man wax kàddu Macky Sall constitution bi ko kowee mhm. la constitution est supérieure à la parole du président la république e ma compréhension de la constitution la mooy warta bokk maintenant bis bu ba conseil constitutionnel ne ko war a bokk nag ah candidat ba may bëgg mu jàpp boobaa dama ne dem leen campagne parce que man c'est même attitude bu laa amoon 2012 2011 quand Abdoulaye Wade xëccoo di xëccoo day bokk du bokk coolu ne kur keroog ba conseil constitutionnel Abdoulaye Wade da ngay bokk dama ko woo ci guddi ne ko hmm, président Macky Sall mu ne ma ah ma ne ko boo xëyee demal campagne ginnaaw conseil constitutionnel Abdoulaye Wade day bokk mënu leen ko te bokk moom itam bis bu su conseil conseil day bokk day bokk de man nag su ma sañoon du àgg foofu. tey jii euh, troisième mandat boobu fan la mën a plonger honorable le pays yow mi nga xam ne xam nga un tout petit peu l'histoire du pays te tamit quoi qu'on puisse dire. Sénégal bu njëkk bi ak euh, le Sénégalais. xam pour man euh, sax jubut. xanaa troisième candidature kay. waaw vous ay ay njàpp. Mhm. Sénégal ku ñu doyal ci yow da nga leen abal. Mhm. Sénégal dafa daane ñaari président fal ñaari président mhm. bëkk dem élection législative gis nga résultat yi ci génn mhm. la ko jiitu mooy élection locale c'est mooy carte politique carte électorale lu lu ci Sénégal yi bëgg mën na ko def man dama jàpp ne ku am ku du lakk Sénégal yi bu ñu doylee ci Macky Sall même bu conseil constitutionnel day bokk bokkee ñu daane ko man loolu laa gëm damaa gëm askanu Sénégal ne ku ñu doyal ci yow da leen abal. jàppoon ne mën na indi crise profonde parce que nag 2011 Abdoulaye Wade lijjanti woon bu bokk. Eh, eh, eh, taxul mu gagné. y avait des morts. mais y a des morts c'est inacceptable. dee ya teewu koo bokk. dee ya taxu koo gagné. loolu nag am na xam ne Macky Sall moo ci mën a tiré conséquence boppam ne man mënu ko su bëggee bokk man mënu ma ne doo bëgg a bokk. su ko conseil constitutionnel da bokkit nag man man mënu ma ne du bokk. su ko nee doo bokkit nag mënu ko da ngay bokk parce du bokk. encore une fois bu Sénégal yi doyalee ci moom nag ba ne ba ne duñ ko falaat kenn mënu ko tax a faluwaat. ñu jeexale ak benn question honorable par rapport ak loyer bi mu nekk loo xam ne sonal la noonu bu baax sénégalais raw na ñii di yeewoo ci capitale sénégalaise gis nañu le président de la république jëloon ay ndogal pour wàññi mais finalement euh, dafa mel ni comme dafa bëgg a réfugié euh, ci euh, conseil constitutionnel. par rapport ak non xam nga ñun ab loi lañ defaroon. mais loi boobu loi boobu dafa amul effet bi yàggut. ok maintenant moom li mu bëgg mooy au lieu que mu nekk loi mu nekk décret mu nekk règlement mu nekk décret. voilà moom loolu la bëgg moo tax mu saisir conseil constitutionnel. Mhm. pour que conseil constitutionnel permettre ko loi amoon ñu dindi ko pour moom bu def ko règlement. Mhm. autrement dit ba léegi li mu waxoon askan wi ne dafa bëgg ñu wàññi njëgu loi yi ngi ci. waaw man li ma gëm mooy li nu ci mën a génne mooy li ñuy wax une politique d' encadrement des loyers. comment ça or am na benn dispositif bu am déjà Sénégal lu ñuy wax la sur les surfaces corrigées. Mhm. surface corrigée boobu dañ ko war a corriger réadapté ko ba képp ko xam da yor kër di loué bala nga koo loué nit ñu xool surface corrigée ba. Mhm. xam ñaata nga ci war a fayu. ka nga boo fayut ba génn fay ka lay remplacer bu ñuy xam ne surface corrigée bi lii la war a fay. maintenant am na benn ay dispositifs ma dégg na gouvernement bëgg na ko yu euh, euh, euh, que dina yomb parce que bu ñu xoolee secteur bi xam ne yow soo bëggee luye da ngay dem ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk liggéey boobu ñëw xool kër gi de natt ko xool surface corrigée bi xool yeneen paramètres yi ci war a boole ba ne la lii nga war a luye su ko defee yow miy loué du ki lay rek mooy fixé prix bi parce que nag problème bi ñu daal li ci metti mooy kii fi kii loué rek mooy fixé prix ki ñu loué yoonam nekku ci amul keneen ko dox wala sax def ma li nga xam ne moo ñu ko fi mën a nekk Dakar moom mën a sutu fi amatu fuñ nit tabaxati. c'est vrai. moom li ñu ci mën a dindi mooy l'application du dispositif de de surface corrigée. Mhm. ñu ñu réformer ko adapter ko. pexe ba nag Sénégalais yëpp xam ko ba booy dem fenn di luy nga ñu mën daal les toutes les du Sénégal mu am ñu fa nekk ñoo xam ne boo fa demee ñu ñëw xool kër gi nga bëgg luy ba xam ndax surface corrigée bi nu mu demee su ko defee ñu ne la yow nangam nga yor a fay li jaaduwul daal mooy ñu bàyyi ki luy kër gi borom ki moom kër gi di ko luy nu ko neex di koy luy loolu moom war a denc réew foofu la état bi dox suñu seen diggante maintenant ñoom jàpp nañ ne xay na loi bi gënut ah dañoo bëgg a jaar par le règlement ak ah jàmm l' essentiel mooy nag nañ fexe ba yëf yi wàññi ko parce que nag métti na trop trop ci location bi. waaw Ndakaaru yow da ngay d' rëyut ba pare location bi kenn attanu ko finalement yow da liggéey ba bëgg a dee lan nga koy def. ci location location. location c' est. mën nga fa am ñaar fukki at bis boo yore ñaari weer yoo yoo retardé ñëw génn la. c' mais ça c' est inacceptable moo tax man même à Dakar moi je crois que les les comme ay Ndiakourab jëm Euh, yi wër Ndakaaru mhm. war nañ fa développer une politique de logement social bu ko defee nit ñi Ndakaaru yi mën a dem dëkk foofu maintenant puisque am na TER am na BRT am na am na VDN Nord am na euh, ay autoroute nit ñi déplacement bi dina gën a gaaw su ko defee nit ñi am defal leen fa ay kër yoo xam dañ koy def location vente yow même bu fekkee 500000 francs ngay luyee ñu di la kër ga ngay fayu. Mhm. ñu luyee la kër ga 250000 francs mais kër gi yaa ko moom. dëgg la jar na ko. dëgg la mais li xam ne moom it da ngay fay lu cher. te boo de am fa ñaar fukki bis boo demee ba yore leen ñaari weer ñu génne la kër ga. loolu moo jaaduwul. boo retraité nga toog ak sa njaboot. mais bien sûr mais la nga dee ci diggante bi nga dee ci sa kër fukki fan duñu leen ko may dañ ñëw génne leen. te nit ñi amuñu luñ jënd tabaxee kër ñu jàpp. c'est vrai yi mayut nit ñi luñ tabaxee kër. d'abord ñu fi liggéey am salaire bëriwut. ñu ne a yem dañuy taaba taaba. te des salaires de misère. c'est des salaires de misère mais salaire de misère moo tax ne taaba taaba de misère. donc nit ñi dund googu nit ñi dund. nga bëgg te location métti trop sëñ bi loolu mu a nekk. c'est pourquoi moi j'invite encore bi fois le président ni ko loolu na ci gaaw nit ñi di nit ñi maanaam fi mu ne xanaa lakk la ñuy def mais dee nañ ba noppi. Mm, les Sénégalais sa bon oh, quand direct sur les réseaux sociaux ñun may signaler voilà l'affaire Mola Morgan voilà coow yu bëri na ci lool par rapport ak euh, saaga yeeg xasante beeg uñuwante si sutura yi te yow bokkoon nga ci ñi nga xam ne daloon alerté par rapport ak si euh, yële dérive mais il faut rappeler que Mola Morgan bokkoon na euh, ci nit yi nga xam ne c'était des défenseurs d'Ousmane Sonko finalement dafa mel ni comme daf leen wan gannaaw xaw ma quest qui s'est passé. yàpp oui am yow day sama doom bi dëgg la. ju la <laughs> waaye bu ma keneen posé woon question boobu ci kooku yi danañ jote. <laughs> ah oui kon waaye de ci ñoom a tooj ñu tëj le mot de fin. <laughs> jërëjëf baax ci invitation <laughs> fekkee li fi wax dëgg ñu sant ko yàlla subhanahu wa taala may fàttali waa réew mi rek ku ko bëgg a taal ku ne boo ñëwee mën naa la may almet ak pétrole. ah oui ndax ñun ñëpp ci bokk de xam loolu daal ku leen ne mbas a ngi ko na gaaw waxu caaxaan yi le procès du sexe opposant Ousmane dina am euh, honorable bàyyi li ngay wax le procès de diffamation ak ak difa pour diffamation dina am maanaam ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu jog ci loi neex de hey dañuy laa ngir bëgg jàmm ñoom ñoo nar a taal réew mi nit bu nekku ci dëgg da naa ko yaa nekku ci dëgg ba mu xam ne nekku ci dëgg mu génn ci parce que na sëñ Babacar si daam lu mu doon wax nañ ko ñun ñëpp dañ ko war a bàyyi xel bu kenn nangoo di di maslaa bañ maasaleel la or maslaa ku nekku ci dëgg day tax ñu maasaleel la te Ousmane Sonko dans cette affaire là muy Adji saar ak Mame Mbaye moo nekk ci dëgg moo waxul nit ñi dëgg moo fenn askan ba fukki doomam mag ñeent faatu ci ay milliards yàqu ci c'est inacceptable jërëjëf merci beaucoup merci euh, beaucoup honorable euh, député Moustapha euh, Diakhaté yaa nekkoon sama invité pour ce premier numéro de la semaine waxtaan bi neexoon na amoon na solo on se donne rendez-vous internautes yi demain incha allah beneen invité yeneen waxtaan yu fi nar a ubbi d'ici là prenez soin de vous et restez en compagnie de nos programmes merci